بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom ñoo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokki jullit yi ñoo ngi ànd ak yéen ci téere borom bi tabaraka wa taala ñu toll ci suratul an'am ci kàttanu yàlla tey ñuy jeexal saar bi mu nekk sant gun war a sant sunu boroom lu njëkk mooy yàlla dimbalinu ñu tàmbali saar bi mu nekkoon téeméeri aaya ak juróom benn fukk ak juróom ba tey ñu dese ci juróomi aaya di ko fas yéene jeexal tey juróomi aaya yi nekk sunu kanam sunu borom subhanahu wa taala diñ ci jàngal juróom benn mbir mu nekk min hidayatil ayat yooyu mbir yi ci njëkk mooy millatu ibrahim alayhi salaam hiya al islam ñun ñëpp war nañu ànd xam ne yoonu yonent yàlla ibrahim du benn yoon budul islaam moo tax yàlla day wax ne maa kaana ibrahima yahudiyan wala nasraniyan ibrahima du yahud ibrahima du nasaraan donte ne ñooñu ñu ngi koy xëccoo di ko tiitaroo waaye yàlla lim nu wax mooy ñaari koleer yooyu ibrahima bokk ci benn ibrahima fan la bokk yàlla mu ne yoonu ibrahima alayhi salaam mooy islaam moo tax mu nekk baayu yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu nekk imaamul muwahidin inna ibrahima kaana umma kon yoonu ibrahim yoon woowu yàlla tànnaloon ko jaarale ko falan yàlla jaarale ñun jullit ñi millata ibrahima aba abukum huwa sammakum muslimina min qabl sunu borom subhanahu wa taala nee na yoonu sunu baay ibrahima fam ñu jaarale mooy moom moo nu tuddee jullit moom moo nu tuddee jullit kon yoonam wu mu indi wu mu indi mooy islam loolu kon danañ ko jàng tey ci aaya yi ñaareel bi mooy masruiyatu qawlu inna salaati wa nuski wa mahyaaya wa maati lillahi rabbil alamin fi lqiyaami lissalaati yoonal gu ñu yoonal ab jullit bu jógee di julli baat bi de inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaatiya lillahi rabbil alamin yoonal guñ ko yoonal mu koy wax ci julleem ci du'aul istiftah yeneen bi alayhi salaatu wasalaam daana wax li bu jógee ci guddi di julli daana ko wax inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa maatiya lillahi rabbil alamin daana ko wax guddi bu jógee di julli déedéet bu jógee di julli waaw bu jógee jëm ci julli waaw daana ko wax ñaareel mooy la yasixu talabu rabb gayru llahi taala li annahu rabb kulli shay du wér mukk ci jullit muy sàkk ci keneen ku dum borom bi tabaraka wa taala leneen wala mu koy def yàlla yàlla rek subhanahu wa taala mooy rabb kulli shay mooy borom lépp moo moom lépp moo moom ñëpp kon du wér mukk ngay sàkku ci keneen leneen loo xam ne ci loxo yàlla tabaraka wa taala la nekk loolu danañ ko jàng ci ay nekk sunu kanam beneen bi mooy adalatullahi taala tatajalla yawm alqiyama maandute yàlla tabaraka wa taala kañ lay feeñ dëgg-dëgg yawm alqiyama bu demee ba yowmal xiyaam dañ fa fekk buur bu maandu buur bu dul tooñ kenn buur boo xam ne léppam ci maandu te la ko teg loolu danañ ko jàng ci aay yi nekk sunu kanam juróomeel mooy adalatul jaza yowmal qiyaama maandu te gu yàlla di yemale doomu aadama yi di leen fay yowmal qiyaama ku nekk la nga liggéey loon rek yàlla loolu la lay fay waaw wa an laysa lil insaan illa ma saa li nga jëf li nga liggéey moom la la yàlla tabaraka wa taala di delloo loolu danañ ko jàng juróom benneel mooy tafaawutu naas fi l ghina wal faqr wa siha wal marad wal birr wal fujur waaye danañ fekk wa fi kulli shay'in mazhar min mazahiri tadbiri llahi taala fi xalqi yantafi bihi zakirun min gayri ashaabi alxafla wannisyan tafawutu nnaas nit ñi wuute gu ñu wuute fil xinaa ci am am ñëpp a tolloo am am déedéet wa sixa ci wér ñëpp a tolloo ñëpp a wér déedéet wal marad ci feebar ñëpp a feebar déedéet wal bir mbaax est-ce que ñëpp a baax wal fujuur kàccoore ñëpp ay kàccoor lañ yii ñu lim yëpp da nga fekk nit ñi dañ cee wuute am na ñu am am na ñu amul am na ñu wér am na ñu am na ñu ñàkk am na ñu ñàkkul am na ñu wér am na ñu wérut am na ñu feebar am na ñu wér am na ñu baax am na ñu bon am na ñu bon am na ñu baax mooy tafaawutu naas nit ñi noonu la ñu wutee ci lépp waaw foo fekk ku bon rek ci côtéem am na ku baax ku fa nekk mu ne waaye yii yëpp mazhar la min mazahiri tadbirillah day feeñal kattanu yàlla ak ay pexeem ci jaam ñi waaw lii la lay wan ne yàlla am na moo tax ñi am ñi amuñ ñi wér ñi feebar ñi ñàkk ñi am ñi baax ñi bon loolu lu muy feeñal mooy yàlla tabaraka wa taala mooy yor aw doxalinam wu muy doxal ci kaw jaam ñi kenn mënuñ ci dara noonu la yàlla bindee àdduna waaye mazhar boobu phénomène yooyu di feeñ ki am ki ñàkk ki wér ki feebar ki baax ki bon ñan ñoo ci jëriñu mooy borom xel yi ñan ñoo ci alku mooy ñi sàggan ñi fàtte waaw ay mbir la yu yàlla doxal ci jaam ñi pour kenn ku ci nekk ki am am amam lan la ko war a jural mooy mu xalaat am am bi tey man tey suma ñàkkoon tey suma ñàkkoon lan laa war a def ci kon ci sama am am bi ma am ki wér tey suma feebaroon tey voilà ba soo wéree nga xam loo war a def mbir yooyu li tax yàlla tëral ko mooy kenn ku nekk nga xalaat waaye chaque jour ñan ñoo ciy xalaat ñan ñoo ciy jëriñoo mooy borom xel yi set yi xam ne lii yëpp nattu la am am nattu la ñàkk nattu la wér nattu la feebar nattu la baax nattu la bon nattu la waaw ndeysaan dama mosoon génn xuruj xaw na yàgg ci benn jàkk ñu fanaani ci jàkka ji ma dem guddi fanaan fa ba fajar ñuy julli ma dajale sama bagage yëpp def ko sama saak boobu portable yi ñu ngi doog a xew ma simmi bagage yi ma fanaanoo woon sangu ba ñu naafila julli julli suba jot ba ñuy julli bi ñuy julli ma teg saag bi sama kanam léegi ki nekkoon sama kanam dem ci beneen sàppe bi ci kanam ma avancé ci sàpp foofu waa ji doxoon ma avancé bi mais ma bàyyi saag bi fi mu nekkoon ñu sëlmal gisuma saag bi ñu xool ci jàkka jëm gisuñu saak bi waa ji yóbbaale suñu bagage sama bagage yëpp mu yóbbu ko après gars yi wax ko amir bi ñu ne ah oustaz Saïd lii de bagage am dañ kaa yóbbu ci fajar ndeysaan mu daan may woolu ma ñëw mu ne ma yow nag ak ni ñu bëggee woon nga génn xuruj yëpp bi nga ñëwee ñëpp kontaan après lii dal la mbaa doo découragé ma ne ko déedéet mu ne ma waaye santal yàlla ba nga nekkul place waa ji jël santal yàlla ba yàlla nattuwu la nga nekk place waa ji gis nga ndeke ñun war nañ sant yàlla lu bari de hmm? war nañ sant yàlla ci lu bari tey ji bala yàlla nattoon nga nekk ci yeneen côté yooyu bala yàlla nattoon tey nga bokk ci ñu feebar tëdd hôpital lal hôpital mënoo yëngu wala yàlla natt la ci nga xam ne dañoo ñàkk ba nekk ci mbedd yi di ñaanaatu wala yàlla natt la tey nga bokk ci agresseur yeeg bandi yi nga xam ne tey police a ngi leen di wër kon di nga yëg ne dëgg dëgg dëgg yàlla moo la natt nga xam waaye da ngay sant sunu borom moo tax yeneen ta alayhi salaatu wasalaam di wax ne bu ngeen gisee ku yàlla natt na ngeen jàng ñaan bi ñaan bi mooy lan alhamdulillahi lazi alhamdulillahi lazi afaani mimma btalaahu maa ngi sant yàlla mi nga xam ne moo ma muccal ci nattu bi mu nattu waa ji waaw léeg-léeg ma romb stade bi gars yi di yuuxu deux heures bëccëg naaj bi tàng jër nga jàpp jëm jàkka ja gars yi jàpp jëm stade gars yi sangu jëm stade est-ce que war a wax alhamdulillahi allazi afaana mimma btalaahum ah kay xoolal naaj boobu ni mu tàngee ñoom yàlla ngi leen natt fuñ jëm ñoo nga jëm stade yow yàllaa ngi la bëgg fu mu la jëmee yaa ngi dem jàkka ji ay waa ay ay ay camion ay waamee oto di la romb war nga sant yàlla beneen bi mooy yeewul fajar rek fajar nga dégg asalaatu xayru mina nawm nga génn sa buntu kër nga jëm ci jàkka ji lu ëpp ci ñun lan ngay dajeel ay muus ay muus ngay dajeel ay muus koñ bi nga dëkk yëpp li ëpp ci nit ñi seen bunt kër yi ñu ngi tëju ñu ngi nelaw boo demee jàkka ja lenn saa yi nga fekk fa benn sàppi lenn saa yi ñaari sàppi ci dëkk boo xam ne dañu ne jullit yi ñoo ëpp yéeféer yi ah yow yàlla subhaanahu wa taala baaxee la ci fajar googu nga jóg di joxe ji sa sa jaam sa sa julli borom da nga sant yàlla ana ñeneen ñi ñoo ngi nelaw loo leen gënee loo leen ëppale loo leen loo leen mooy yàlla moo la baaxe rek yàlla moo la baaxe ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen kon mbokk yi juróomi aaya yooyu juróom mbir yooyu juróom benn mbir yooyu ñu doon wax ñu ngi koy jëlee ci juróomi aaya yi nga xam ne moom moo nekk sunu kanam sunu borom subhanahu wa taala mu ne qul innani hadaani rabbi ila siratin mustaqim diinan qiyaman millata ibrahima hanifa wa ma kaana min almushrikin sun borom subhanahu wa taala mu ne fi hadihi alayat wa hiya khatimatu hadihi sura allati balagat ayatuha bid'an wa sittina wa mi'a aya wa kanat kulluha fi lhajij ma'a al'adilina li rabbihim wa bayani tariqi lhuda la'allahum yu'minun fayuwahhidun wa yuslamuun mu ne aaya yii nga xam ne tey mooy jeexal saar bi saar bi nga xam ne aaya yi dem nañ ci téeméeri aaya ak juróom benn fukk ak juróom mu ne aaya yooyu yëpp ñu doon jàng depuis ñu tàmbali saar bi ba tey aaya yi di jeex mbokk yi mu ne xam ngeen aaya yi lu ñu doon jàngale ci daggasante ak bokkaalekat yi ñi dëgër bopp féttéer lu ci seen jaamu seen borom boobu ba léegi téeméeri aaya yi ak juróom benn fukk ak juróom ñan lay waxal ñi lànkal seen borom ba ba léegi ba ñu tàmbalee suratul an'am ba léegi aaya yi ñoo ngi wax ak ñu dëgër bopp ñooñu ñu féetéerlu ñi ñu dangiral seen digganteeg seen borom wow koŋ topp iblis aaya yi di leen leeralal yoonu njub ndax ñu gëm yàlla ñu kennal ko moom yàlla tabaraka wa taala ñu mucc ëllëg yowmal qiyaamati mbokk yi jot na ñun ñëpp ñu ànd xam ne alquran dafa ñëw pour orienter ñu pour ñu jub zalika alkitaabu laa rayba fiihi hudan téere bi daa ñu pour nit ñi jub waaw téere alquran dafa ñëw pour jubal doomu aadama yi téere bi daa ñëw pour nit ñi génn nit ñi ci lëndëm yóbbu leen yóbbu leen ci leer kitaabun anzalnaahu ilayka li tuxrija annaas min azulumaat ila nuur loolu nit ñi dañ koo war a dugal seen bopp yi téere bi daa ñëw pour nit ñi génn ci lëndëm dem ci leer léegi nag nit ñi bu ñu bañee topp téere bi est-ce que danañ génn ci lëndëm nit ñi bu ñu bañee topp téere bi est-ce que danañ jub wala Sénégal bis bu nekk am na lu xew léegi bis bu nekk am na ay lu ñu lu ñu lu jaamu yàlla bu bees bu ñu keree ah non man tey dama xëy rek gis ay rajo fii gis ay baas ma ne lii la la mais fan lañ jëm tee ñoo góorgóorlu ci téere yàlla bi tee ñoo góorgóorlu won jaam ñi yàlla mais dëkk boo xam ne lekk ak naan rek jaamu yàlla seen jaamu yàlla lépp mooy rey rey ay nag rek lekk teg ay cin rek di lekk rek ba kañ moo tax nit ñi boo leen wooyee ci lekk rek ñëw ñëw ñëpp ñëw billaahi nit ñi toog fii ku ci amoon ay nag bis mu nekk nga rey ñaari nag sa kër léegi nga nekk sëriñ naxuma la de wallahi alazim ku ko weddi utal ay nag rek utal 40 nag rek nga denc leen ci benn ruxu bis bu nekk nga téléphoné ngeen indi leen benn ñu baas ngay génn di sol garam bu nga ne kaalaw léegi ñu commencé allahu akbar ki yàlla dakaa may xamu leen lu mu àndal kii borom karaama la moo ñaanal diw moo puus kële moo tëx feni kese alxuraan dafa ñëw mbokk yi pour jubal nu sunu borom ne qul waxal yow muhammad alayhi salaatu wasalaam inna nii man mii di yonent bi hadaani jubal na ma kan rabbi sama borom ci lan la ma jubal ila siratin ci yoon mustaqiman wu ne coow jub xocc allahu akbar siratal mustaqim paase na mu nekk wasiyatu rasul sallallahu alayhi wa sallam ñun ñëpp waxoon naa ko fi passé ma tagul fukki fan ma tagul ñetti semaine ñuy jàng siraatal mustaqim wala ba ñu laaj fii ñaata yoon la nit di jàng siraatal mustaqim ci bis bi ñaata la ñu ne 17 fois bis boo xëyee di nga wax 17 fois ihdina siraatal mustaqim yàlla yàlla nag ma teg ci loolu mooy ki nga xam ne farata kese lay julli ki ci boole naafila yi nag ki ci boole julli guddi yi kon kooku lan la def bés bu nekk yoon woowu yonent bi nee na man man yàllaa ma ci teg qul innani hadaani rabbi ila siratin mustaqim waaw man de yàllaa ma teg ci yoon woowu nga xam ne mooy siratal mustaqim siratal mustaqim mooy ban yoon mu ne diinan mu nekk yoon qiyaman bu jub xocc mooy mustaqiman yoonu kan la mu ne millata ibrahim yoonu baay ibrahim ibrahima de bu ngeen bëggee xam ci lu mu nekkoon nekkuloon ci yahud nekkuloon ci nasaraan nekkuloon ci ay bidaa nekkuloon ci bokkaale ibrahima moom ci siraatal mustaqim la nekkoon waaw ci yoonu yàlla boobu yàlla rëdd yàlla ne na ci ñëpp jaar ibrahim alayhi salaam ci yoon woowu la jaar yoon woowu di yoonu yàlla tabaraka wa taala fala ibrahima jaar alayhi salaam jaarul beneen yoon waaw yàlla subhanahu wa taala teg yonent yàlla muhammad ci yoon woowu bal sax ñun ñi ñëpp yàlla daa sàkku ci ñun ñu jaar ci yoon woowu wala yàlla sàkkuwul ci ñun ñu jaar ci yoonu ibrahim wala yàlla ba muy tëgg tagg ibrahim ak gaa yi ànd ak moom ba mu leen taggee bàkk leen ba pare lan la wax yéen ñi bu ngeen bëggee baax jaar leen ci yoonu gaa yooyu wala kon nag ku bëgg a baax siraatal mustaqim dong moo lay baaxal amul beneen yoon tey Sénégal jàpp nañ ne bu ñu jaaree yeneen yoon bu ñu fentee leneen bu ñu toppee leneen dañuy baax wala dañuy jub dañuy sonn rek benn yoon dong mooy baaxal nit ñi mooy yoonu yonent yàlla Muhammad wallahi alazim amul beneen yoon buy baaxal keneen keneen kuñ mën a topp dañuy sono suñ bopp duñ fa jële mbaax duñ fa jële dara coono dong lañ fay jële ak yaram yu metti dee dem safara benn yoon boobu dong mooy yoonu yàlla mooy yoonu yonent bi mooy yoonu yonent yàlla ibrahim yàlla moo nu ko tànnal nekkul mbindeef moo ko tànn hatta yonent bi tànnul lu mu war a jaar yàlla ko tànnal leer na nañ qul inna nii hadaani kan rabbi ci lan la ma jubal mu ne ila siratim mustaqim mu nekk diinan yoon woo xam ne mustaqiman diina joo xam ne qiyaman dafa jub xocc mooy mustaqiman mu nekk millata ibrahim hanifan mu ne dafa jeng ci lépp lu bon jub ci lislaam waaw mu ne diina ibrahim mooy diina lislaam dañ ko dénkante sax wa wassa biha ibrahima banihi wa yaqub ya baniya inna allah astafa lakum din fala tamutunna illa wa antum am kuntum shuhada iz hadara yaquba almawt iz qala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahak wa ilaha abaik ibrahima wa ismaila wa ishaq ilahan wahid wa nahnu lahu jeena ndénkaane la am kuntum shuhada iz hadara yaquba almawt ndax yéen fekke ngeen keroog ba yaquba di dee yaquba koo jur isaaxa koo jur ibrahim ndax fekke ngeen keroog ba yaquba di dee nekk ci sukuraat lam doon dénk ay doomam ah ndax daf leen wax ne tool yi nu ngeen koy baye alxuqul kayfa tazraunaha la al amwal kayfa tajmaunaha alal ji nu ngeen koy gérer mukk al qusur kayfa tabnunaha sato yi nu ngeen koy yëkkatee la lan la leen laaj ma taabuduuna min baadi lu ngeen di jaamu sama ginnaaw allahu akbar mbaa duma dee ngeen fi organiser ay affaire nekk ay bokkaalekat ah mbaa duma dee ngeen fi rëy nag mbaa duma dee ngeen def sama estati fii di ma jaamu ma taabuduuna min baadi lan ngeen di jaamu sama ginnaaw Ibrahima mu ngi sukuraat xale yi ne ko qaalu naabudu ilahak wa ilaha abaik sa yàlla la ñuy jaamu yow sa yàlla yàlla jooju mooy sa yàllaay baay ban baay ibrahim ishaq ilahan wahid benn yàlla boobu ëllëg yowmal xiyaam buñ dajee yow baay di nga fekk wa nahnu lahu muslimun ñu ni nekk ay jullit wax jooju yaquba waxoon moom la dénk ay doomam yusuf loolu la dénkaane Moussa loolu la wax mboolem yonent yi hatta Isa alayhi salaam loolu la wax waaw ñoom ñëpp kenn ku ci nekk ci lislaam nga nekkoon lislaam mooy diine ji nga xam ne aadama moo ci njëkk a ñëw ci yonent muhammad alayhi salaatu wasalaam moo tëj bunt bi fi mu nekk nii ñu bëri ci ñun dañu yaakaar ne yenn saa nga dégg ñu ne diine yi dañoo bëri hatta Sénégal sax tarixa yi dañ naan këru këru diine yi këru diine yi waaw fii balaa dara di fi am dañoo war a déglu këru diine yi diine yi ñaata la diine yi benn la dañoo war a wax lan lañu war a wax këru diine ji waaye waruñu wax këru diine yi kër yi mën nañoo bëri mais diine ji moom mënut a bëri mais mala saf dañoo bëril diine ji nag dañoo bëril diine bi ku nekk li nga nekk ba pare kontaan ci jàngoon nañ samedi passé kullu hizbin bima ladayhim léegi nit ñi fàtte nañu sax diine bi tarixa yi moom mu leen gënal tarixa yi ku nekk sa tarixa moo la gënal sa diine waaw dal nañu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp mu ne yoon woowu xanifan dafa jeng ci lépp loo xam ne dafa sori islaam jub xocc ci lislaam mu ne wa ma kaana min al mushrikina moom mësta nekk ci bokkaalekat yi wa ma kaana mësta nekk min al mushrikina ci bokkaalekat yi ñuy utal yàlla ndend di dendale yàlla ak waaw laqad kaana lakum fi ibrahima walladina maahu إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى tu'minu billahi wahda gis nga ibrahima ibrahima li tax yàlla ne inna ibrahima kaana umma du hasard de ibrahima dafa déclaré nation bi ko yàlla yónni woon guerre ne leen maag yéen ay noon lañ ba ngeen di jaamu yàlla kese rek su ngeen nangulee yàlla rek ngeen nekk samay mbokk su ngeen nangul maa ak yéen ay noon lañ ba yowmal qiyaamati moo tax yàlla mu ne inna ibrahima kaana umma waaw ibrahima rek nation la ci tawxid suñ jëloon doomu aadama yëpp seen ngëm ñu teg ci balance ñu jël imaanu ibrahima ibrahima da leen di daaneel allahu akbar moo tax du hasard yàlla mu ne wattaxaza allahu ibrahim xalilan affaire du ay wax de jëf la waaw xaritu yàlla ku toll na yàlla yàlla waxul wattaxaza ibrahima allah xalilan déedéet yàlla dafa ne wattaxaza allahu ibrahima kan moo def keneen ki xarit loolu doy na tey Macky Sall bu nekkoon sama xarit ngeen defee ne dinaa tafsir si samedi bi nii dinaa ñëw tafsir ah wax leen dëgg rek waaye dama leen aw ma jot tey ci maag président ñooy doon yereer gars yi xaar leen ba beneen samedi quoi noonu lay rocce ko ci samedi ba set ci wicc allahu akbar ndax lan ndax poñet ndax dara ndax koom ndax ndax ndax ndax ndax waaye xoola ku toll na yàlla mu ne maa jàpp ibrahima mu nekk sama xarit allahu akbar gars yi loolu grade la de ah garaat mënut a rëy lu wees loolu waaw yàlla nee na Ibrahima sama xarit la ndeysaan moo tax Ibrahima bi bi ko dee dikkalee mu ne Jibril Jibril mu ne ko sa waxtu dee jot na de malakal mawti dina la jël si malakal mawti ñëw mu ne malakal mawti kan moo la ne nga rey ma mu ne ko sa borom mu ne dellul ci moom boo demee nga ni ko Ibrahima nee na atara xalilan yu miitu xalila ndax mas ngaa gis xarit di rey xaritam yàlla gën a xam malakal mawtu yàlla mu ne ko dellul ci ibrahima boo demee nga ni ko atara xalilan yakrahu liqaa xalili ya ibrahim hal tara xalilan yakrahu liqaa xalili soo demee nga laajal ma sama xarit bi ndax xarit dina bañ a dem ci xaritam yaa yi ndax xarit dina bañ a dem ci xaritam ba demee nga laaj ko loolu allahu akbar sunu borom kenn du rëcc lu tax mooy borom jaam ñi waaw waaw wallahi alazim wa makaru makaran wa makarna makaran wahum la yashurun yaa ngeen aaya ba gars yi ba ñu fexee leen yonent ba ne dañ koy embuscade dañ koy rey dañuy dem gas ay pax ñu tàgg guddi ñu ne ñun tukki nañ ñu dem dugg ci pax yi ah ñu nekk foofu su guddee ñu ñëw rey ko dem delluwaat tëdd suñu yeewoo bu waa dëkk bi di wax ñu ko rey ñu ko rey ñun suñu yoon nekk dinaan ñun fekke wuñ ko rey ñoo nañ loolu ah so kan la woon ban yonent la ah Saalix ah ah Saalix la ndeysaan ñu dem gas pax yi dugg ci ba ba ngoon ñu ñëw jël seeni saak ñoo ngi tukki incha allah fan yi dinañ ñëw ñu dem dugg ci pax yi yàlla mabba pax yi seen kaw ñu bisaatuñ de dañoo dañu bàyyi ba timis jot ñu ñëw rey yonent bi delluwaat su waa dëkk bi naan ko ko rey ñoom duñ ko fekkee moo tax yàlla mu ne wa makaru makar nañ fexe nañ seeni pexe mooy nuñ koy reyee wa makar na makaran wahum la yashurun ma bàyyi leen bañ ñëw ak seeni saak nàmm seeni jaasi teg di xaar gee jot ñu génn dem rey waa ji yàlla nee na ma màbbal pax yi seen kaw ñu nga fa dee ñooñ moom foofu mooy seen bàmmeel kenn sangu leen kenn jullewu leen kenn suulu leen yàlla màbbal pax yi seen kaw moo tax gis nga yàlla ay mbiram rek moo dëggu wallaahi leneen lépp ay caaxaan kese la sunu borom nee na qul waxal yow muhammad alayhi salaatu wassalaam inna salaati naka sama julli waaw wa nusuki ak sama rendi li may jaamoo yàlla ma asbahu taqarruban ila allah li may rey pour jege yàlla moo tax gis nga rendi yàllaa ko moom boo amee doom xar bi ngay rendi lu tax du bokkaale ah yàlla la ko digal soo amee gan ginaar gi ngay rendi wala xar bi ngay rendi lu tax du bokkaale ah booy céetal di takk soxna ñu ne la rendil nga rendi lu tax bu nekkul bokkaale ah yàlla la ko digal waaye leneen lu dul lool nag laana allah man zabaha li gayrillah yal na yàlla soril yërmande ki rendi te li mu rendi rendi lu ko yàlla rendil ay bàmmeel rendil ay ta ay ay tuur rendil ku feebar rendil rendil bàkkaar la wala rendi loo xam ne bidaa la ñuy dundal ñu rendi ne kaay leen lekk nga dem lekk yow yàlla rëbb na la da bu yóbba ngeen bàyyi xel li ngeen di lekk waaw nekkul baas boo gis rek ñu ne la kaay rek ay nag la rek nga fërëx fërëx yi sa biir ñëw lekk ba sur gàddu mburu naan xaaral ma yóbbaale sama kër ah hadis la di laanallah man zabaha li xayrillah lii ngay lekk lu tax ñu rey ko ndax yàlla tax jar naa xalaat bi ngénte lu tax du bàkkaar santaane yonent bi la céet santaane yonent bi la teral gan santaane yonent bi la ak lan tabaski santaane yàlla la korite santaane yàlla la ak lan mboolem fiñ la ne rendil wala defal loolu ndigal la amaa leneen lu dul lool ne xoolaatal li ngay def rendi yàlla ko moom waaw deret bis bu nekk dañu war a xam ne lu bakkan la bakkan li tax nga koy def war nga kaa xoolaat bu baax qul inna salaati sama julli wa nusuki sama rendi wa mahyaaya sama dund wa mamaati sama dee li man lillaa li yàllaa ko moom bul ci dugal nit jaamu yàlla ah rendi sa dund sa dee ah fii nag da ngay gis gaa yi tëgg sabar wala mbay suñu tëgg sabar yi xam nga ban way la ñuy way xam ngeen ko xamu leen ko xam ngeen ko kay xam ngeen ko yéen ñëpp sabar yi lu ñuy àndal xam ngeen ko bu ñuy dund ak bu ñuy dee yëpp ah ku ñuy moom yéen a ko gën a dégg xam ngeen ko man yàgg naa dégg sabar yooyu ñu koy tëgg rënga rëng rëng suñuy dund ak bu ñuy dee yëpp ah lii de aaya bi da koo weddi aaya baa ngi nii de kan moo ñuy moom yàlla wa mahyaaya wa mamaati liman lillah ndeysaan ndeke du nit du sàmba du ma demba kan la yàlla kon nag mbokk jullit yi dafa des rek ñu delloo si xel yi xel yi moom buñ koy nangoo indi ci ñun rek dañuy nekk ci lu leer mais xel yi buñ leen bàyyee ñu dem rek dañuy nekk ci réer dund ak dee yàllaa ko moom amul kuy dundalaate amul kuy reye ku dul yàlla ku yàlla namm ci ñun day dund day dund ku yàlla namm ci ñun sax faatu da ngay faatu kenn mënu laa fexe ba nga mucc loolu rufi atil qalam wa jaffati suhuf loolu këyit gi fendi na xalima gi yàlla yëkkati na ko li nga war a dund da nga koy dund li nga war a dee da ngay dee sa dund yàllaa ko moom sa dee yàllaa ko moom lii mooy tawxiid lii mooy kennal yàlla lii mooy wéetal yàlla soo ko gëmee sa pas-pas wér soo ko sàgganee nga bokk ci borom pas-pas yu fënëx yi nga xam ne ëllëg yàlla dañu lay ak ñoom gis nga yemul ci rek lillah waaye mu ne rabbil alamin yàlla moom nga xam ne moo moom adduna bi moo gouverner adduna adduna moom moo ko yor moom yàlla ñaata aaya la ñuy jàng rabbil alamin ñaata ñaata même sa julli rek boo ne allahu akbar li ngay njëkk a wax mooy alhamdulilahi rabbil alamin maa ngi sant yàlla borom mbindeef yi borom addina bi maa ngi koy sant alhamdulilahi rabbil alamin mu ne laa sharika la yàlla moomu kenn waru ko utal ndend kenn waru koo bokkaale démb suñu xutba moo doon bokkaale daanaka ñun ñëpp xam nañ bokkaale la ci nekk bokkaale ku koy def rek boo dee da ngay dem safara te bokkaale neexul de yéen ñi am soxna xam ngeen bokkaale neexul tey jii fii bu nu tafsiroon ba pare nga ñëw fekk benn ponkal tëdd sa kaw lal nga ni sa jabar kii kan la mu ne la noo kii mu aaye tey fekk nga indaale douze coups nooy def ah bi mu la ne kii moo aaye boobu rek mu ne la toogal nag tey ginaar laa la toogal toogal ndax ginaar boobu di nga ko lekk lu tax ah lu tax doo ko lekk ah da laa bokkaale keneen da ngaa kontaan wala da ngaa mer ah yow am nga soxna non yow xamagoo danger bi xaaral ma laaj borom soxna borom soxna yi fii waa waa kay bismillah loolu sa soxna bu la ko waxee da ngay kontaan wala da ngay mer doo reer doo reer ginaar gi ginaar googu al bu la ko tegee da nga koy bule waaye léegi lu mu la def lu mu la def pourtant yow gisagoo dara de waa ji daa tëdd rek kon xam ngeen ne bokkaale baaxul wala bàyyi kooku sax sa soxna sa doom bi rek sa doom bu ndaw bi tey boo ko yónnoon bitig bi mu toog ba mu nekk ko mu ñëw nga ne ko yow foo nekkoon mu ne la pas diw moo ne woon naa bàyyi li nga ma yónni ma dem moom quoi li nga ma yónni noo koy def da nga koy pes ba lex beneen lex bi ñëwaat beneen côté bi doo kontaan léegi nag yow lii ay misaal yu ndaw la nga bëgg a jël sa borom bi la bind allahu akbar bi la sàkk ne la jaamu ma nga bàyyi ko di jaamu keneen sa borom ne la defal lii nga lànk di ko defal keneen ba pare nga ne na nag kontaan ci man noo amul problème man ah lii déedéet waaw ndax hadis bi wér këng ana aghna ashuraka ani shirki man amila amalan ashraka ma'i ghayri taraktuhu wa shirkahu yàlla nee na man damaa doylu xëccoo ma kan képp ku jëf benn jëf nga boole ma ca keneen ma génn bàyyi laa kooku ba ëllëg ma seet ndax kooku ana ana lu mën yaa ngeen yàlla même aj bi muy wax dem leen aji walillahi ala nnaas xijjul bayt man istataa wa man kafara fa inna allaha ganiyun anil alamin yàlla dafa doylu fa inna allaha ganiyun anil alamin yàlla dafa doylu mbindeef yi so se so àdduna bi yëpp àndoon jub xocc ba mel ne yonent yàlla muhammad du yokk ci nguuru yàlla gi tarfatal ayni nee yaakaar ne nit ñi buñ juboon ñoom ñëpp ah bu nuroog sayyiduna muhammad alayhi salatu wasalam day yokk ci yàlla dara du ko yokk tarfatal ayn du ko yokk dara su ñëpp kàccoore woon ba raw firawna du ya du wàññi ci nguurug yàlla gi dara in ahsantum ahsantum li anfusikum ku def lu baax sa bopp nga ko def yàlla nee na kenn defaluma dara man amila salihan fa li nafsihi in ahsantum ahsantum li anfusikum ku def lu baax sa bopp nga ko defal su ngeen rafetalee seen bopp ngeen ko defal kenn defaluma tus bu kenn yaakaar ne sama julli moo tax yàlla nekk fi su may bàyyi julli yàlla di daanu ay nax sa bopp bàyyil julli du wàññi yàlla dara soo jullee du yokk ci yàlla dara kon loolu dafa war a leer suñu bopp ne lu ñu ñuy sant rek mooy jaamu dañ ñoo sant ne def leen waaye nekkul ne loolu mooy dëgëral yàlla wala moo koy wàññi déedéet abadan yàlla nee na man yéen bu ngeen ma jaamuwul am na ñeneen ñu may jaamu wa in tatawallaw yastabdil qawman gayrakum summa la takunu am saalakum su ngeen lankee bañ maa topp yàlla ne damay indi ñeneen du ma fi nekk di sonn ñeneen ñooy ñëw rek jaamu ma affaire yi daal di jeex voilà suñu papa yeeg suñu yaay bi ñu bañee dund sunna wala ñu bañ a muuru yàlla indi ñeneen xale yuy muuru ñaa xee li daa daay naar la waaw ay xale yu ndaw muuru jilbaab waaw ñi nekk fi bañ a muuru wala yàlla indi ñeneen rek yàlla moom moom nit ñi waaw bi gaa yi di julli di wàcce loxo yàlla indi ñu julli di xabd rek def nii ñii di bokkaale yàlla indi koy ñu jëf tawxiid yàlla kese ah yàlla kese kese kese nga ne waaw waaw yàlla kese ah sa waay man mënuma loolu de ah nga ne ko demal yàlla rek fii yàlla rek amul keneen kenn du fi wax keneen yàlla rek ku yàlla doy lu lay doy tey Sénégal nga naan yàlla nga ni ko nit yàlla mu géné wu yàlla kese kese war naa géné nit ku kay kuñ ne yàlla da nga war a kontaan na jàkka jee ma demoon de ñoom ay waxtaan bu garaaw laa fekk yàlla kese foofu de kenn du fa tudd kenn kon kay alhamdulilah ay di nga gis gars yi ne ay yow yaa ko def foofu man saa laa fay rombe vif allahu akbar waaw mais fu ñuy wax yàlla kese nga ne da nga koy romb sans kon yow fan nga jëm fan foofu kay kon dañ faa war a daw dem toog yàlla allahu akbar waaye yàlla nu xam wala mu ne wa iza zukira allah wahdahu isma'azzat qulubu alladhina la yu'minuna bil akhirah waaye wa iza zukira min dunihi fa iza hum yastafsirun fu ñu waxee yàlla kese da ngay gis am koo xam ne fu mu toog xol baa ngi bañ waaw da ngay sentir waa ji kanam gi lëndëm kanam gi ñuul kuku kuku kuku kuku kuku nga gis bët yi xonq parce que yàlla kese la ñu wax waaye bu ñu waxee keneen rek dajo waa ji commencé yuux di mbëkk ay mii rek di mbëkk ay kii parce que keneen lañ wax yàlla moo wax loolu de wala man ma loolu du aaya yàlla waaw yàlla ab jullit nag wax dëgg yàlla yàlla war naa fees ci xolam war naa bëgg yàlla waaw bëgg goo xam ne du ko bëgg kenn yàlla war na fees ci léppam yàlla war na ko doy waaw wallazina amanu ashaddu hubban lillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah wallahi mbokk yi ku am yàlla ñàkkoo dara wallahi ku amul yàlla amoo dara ak loo am lu mu bëri bëri amoo dara wallahi ku am yàlla ñàkkoo dara ndeysaan so àlla dañaama loolu sëriñ bi doon so àlla dañaama foofu dañaama so allah wasama ala ko daña ha koɗum ceerno o yenno etoɗe dañi allah son dañi allah on mbasani haydara kala mo wasi allah dañani haydara wallahi man kana lillahi kana allahu la waaw ku ànd ak yàlla coow li mooy bëri rek bëri bu keeg mbaam la ku ga ku ànd ak yàlla léeg-léeg nag seytaane def benn liggéey ci ñun waaw diw ànd ak yàlla ba pare ñu rey ko wala diw ànd ak yàlla ba pare ñu tëj ko wala diw ànd ak yàlla ba pare feebar waaw yàlla day xool ndax ànd bi mu ma wax ne ànd naag man dëgg la wala du dëgg ndax suñ borom subhanahu wa taala moo ne maak aaya ba nattu ba alif lam mim ahasiba nnas an alif lam mim ahasiba nnas ndax nit ñi dañ yaakaar di ngeen yaakaar ne da ngeen naan ay jullit lañ rek ñu lay noonu rek allahu akbar ngeen dem ñibbi ngeen yaakaar ne jeex na déedéet yàlla neen damay indi samay test damay indi sama nas du ne këpp sa kaw da ngay ñàkk dépasse nga ñëw julli gee ba pare am gaa yi di génne di buuxante kalfe kenn wadd nga for ko ni nii gis ay 10 000 nga xool gis carte d'identité waa ji yàlla nee na ma lay xool nag bu dee benn waa joo xamante ne ndeysaan ku mu ne ay waay waay waay yàlla xéewale na ma waay xam nga loolu du xéewal xam nga loolu du xéewal mais yàlla moo lay nat ndax li nga waxoon sànq li nga waxoon ne man gëm naa yàlla man xaritu yàlla laa man yàlla rek yàlla muy xool nag ndeysaan ndax 1000 francs yi benn paa nee na ma oustaz ma ne waaw mu ne ma damaa xëy fajar waaw ma loolu sama paas ma taxaw ci arrêt car bi di xaar car benn 1000 francs naaw naaw naaw ñëw bu sama wet taxaw mu ne ma xool 1000 francs yi ma xool 1000 francs yi ma xool 1000 francs yi ma ne ah yow yàlla man nga bëgg a nat ndax man dëggu naa wala dëgguwuma wallaay li nga xam ne man dëggu naa mu ne car bi ñëw rek ma dugg ci car bi bàyyi fa 1000 francs yi waaw gis nga allahu akbar loolu mooy wax bi da nga naan man gëm naa yàlla yàlla daal di lay wiiri koñ waaw ci leneen li nga doon foog yàlla indi la leneen yàlla indi la feebar wala mu indi la ñàkk wala mu indi la natt boo xam ne allahu akbar di xool ndax li nga waxoon sànq dëgg la wala dëgg xoola Ibrahima bi mu ne gëm naa yàlla yàlla bàyyi ba Ibrahima ba mu nekk paa yàlla mu ne ko jongul wa isibtala ibrahima rabbahu bi kalimatin fa atammahunna moo tax ba mu ko defee yàlla ne ko inni jailuka linnaasi imaman nattu la wa isibtala la yàlla wax keroog ba may natt ibrahim lan la ko yàlla natt ah mooy bokk na ci da ngay dugg néegu góor xoolal paa ñu ne ko eh dugal néegu góor waaye boole ci wax moo tax ba mu laajee yàlla di waaw yàlla yow nooy dundale nooy dundale kuddee ëllëg yàlla mu ne ko awalam tuumin xaala bala walakin li yatmainna qalbi naam rabbi arini kayfa tuhina wala walam tuumin xaala bala kon il faut ñu delloo xel mbokk yi ñu góorgóorlu xam ne alquran bii rek moo ñu mun a defar dara mënuñu defar lu dul lii mu ne wa bi zalika ci lii umirtu lañ ma digale wa ana man awwalul muslimin ma nekk njëlbeenu way julli li lii la ma yàlla sant wa ana awwalul muslimin gis nga jullit lépp loo mën a def rek bokkal ci jullit yi bul génn sa bopp ci jullit yi borom xam-xam yi nee nañ Moussa keroog bi ko yàlla di nat dafa génn ci boppam ci saabiri nii ba mu waxee ba mu waxee xudar ba pare xudar ne ko ah lii may def de bul ma laaj lan la wax insha allah sa ajidu nii sa tajidu nii sa tajidu nii la wax ding ma fekk mina saabiriin ma bokk ci muñkat yi dafa génne boppam nit du génne boppam chaque jour nekkal ci biir jullit ñi wa ana minal muslimin waaw nekkal ci biir mbooloo mi fii nii lan la yàlla tudde jullit yi benn baat rek la jullit benn tur rek kese la am mooy man jullit laa yow lan nga jullit yow lan nga jullit yow lan nga mais xoolal natt bi tey soo gàddu woon rajo dugg ci kër yi sëñ bi yow lan nga nga naa waaye jo loolu jar naa laaj yow yow waaye day day yow yooyu du la xulli ay bët rek sa waay yow loolu jar naa laaj yow waaw loolu lu ci nekk subhanallah qul waxal yow muhammad alayhi salaatu wasalaam a xayra allahi ndax keneen ku dul yàlla ah qul waxal a xayra allahi ndax keneen ku dul yàlla abgi rabban moom lay sàkk mu nekk sama borom te moom yàlla moom wa huwa rabbu kulli shay mooy borom lépp kon yemale ko fi caay bi ñu yemale ko fi ba samedi bi di ñëw ñu jël ñaari aaye samedi bi ñu eggali ko waaw alhamdulilah ba tey dee gën a baax rek kon incha allah mbokk yi comme waxtu wi jot na ñu yemale ñu jël ñaari aaya yooyu incha allah samedi bii di ñëw bu ñu yàlla mayee fekke ñu jël yeneen ñetti aaya yi des ñoo ngi jégalu sunu borom njuum tey asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.